asalaamualeykum waa réewum Sénégal mouvement Sauver le Sénégal ñëwat na seen baatu président El Hadj Malick di len wax rek ñu euh, wax dëgg Yalla àllarba ba jamm. ba bañu santé Yalla jullu ci Seydina Mohamed alayhi salaatu peuple sénégalais fi ñu mënte nek ci aduna bi rawatina fi Sénégal di nuyu aduna bi yépp. di nuyu nak membre mouvement Sauver du Sénégal di nuyu nag fansam yu nek Ndar yi nek Europe États-Unis ak fu ñu mën ci ci Sénégal mouvement Sauver le Sénégal mu ngi leen di ñaan la Yalla ak di leen nuyu ak di ñaan ñëpp jàmm ak salaam peuple sénégalais bo ande ak nit mu war la wax waxet waccu lekkat ko xaj waccu mu lekkat ko kooku bu la ne nitu war nga wax lu vous bu beugé attaquer vous avez ne day wax wax waxet ne sax pas tané ndax mba dolo ak manque de valeur ak manque de dignité ak manque de personnalité munta ta peuple sénégalais toujours man mouvement sauver le Sénégal naa leen ak président kenn administration bi Qui ma moy le peuple sénégalais man ma kima la jeunesse l'avenir de demain l'espoir de toute une nation nos dignes héritiers de demain c'est un avenir ak nañ ñuy fexee ba ñu am la liberté économique am soxna am kër am ay doom mën a dimbali seen day ak seen baay mën a jëriñ seen réew lu jeune fi général di waxoon nit ki na nga seet looy defal sa réew mais bul xool le sori yu defal donc loolu mooy di nga xam ni moom moo am waaye nit ki su lay bëgg a empoisonné di la fen di la génn di la bayu sorax ak bayu ndëpp ak naju dëgg ak na ko tam xarit est ce que kooku war nga kaa nangu bu fekkee ni yow am nga ñaanu yaay bu fekkee ni sa papa eh, sa yaay am na sa ñaanu bàyyi est ce que kooku war nga kaa nangu wala yow nga war nekk la ñoo di sacrifice ñoom buñ demee ci ba dal daal ak xirmi daal yow daal yow yaay mottil daan seen bëgg-bëgg daal ñu jërey leen def leen ay néew seen deret turuñ jaar seen kaw pour dem pare wala ko xaatal déglu leen bàttali mi jaal bu baax ngeen xam ni moog ñoom sonko ay ogre monstre lañu lii moo taxoon ma xarit pasal la xamal ñi ngay àndal Malick Gakou xamal ñi ngeen àndal parce que ñi ngeen àndal bu fekkee saaga ndey rek la ak xas ku mel ni ñoom Assane Diouf ku mel ni ñoom Guy Marius ku mel ni a marre ku ni Malank yaa ngi dégg ñu mel ni ñoom capitaine Touré trahir la gendarmerie ba ba pare ñëwaat ñu di may ay 40 millions mu yomb ci ñoom alors ñooñu ñëpp ak ñi fi nekk ñëpp tey jii di dagan baatu askan wi nga xam tey jii ku ci nekk fen nga fen ba nekk député sacrifier doomu jàmbur rey leen ba pare denc sa ndey ak sa baay ci kër ga ak jigéen say rakk yu góor say say jigéen ak toute ta famille sacrifié doomu jàmbur yi tey seen yaay ñoom ñooy dem tey ci armée ya di jooy di tiim seen doom yi dootuñu leen gis ba ila yomi din yéen seen doom yaa ngi fii di jàng nekk ci école yu gën a bakkane bourse yëpp ngeen jox seen doom yi yëpp parti socialiste ba léegi ñu nga bitim réew am xam-xam am lépp léegi bu ñëwee gën a seef suñuy doom ndax ñoon dàq jàng alal di ngeen sàcc yéen sàcc yi laa wax yéen baadoole yi yóbbu ko compte compte bitim am ay appartement wala ay kër ak alal di nga xam am ngeen fi ay kër ak ay tool ak lu nek mu nek l'argent des comptes conviables Sénégal pare yeen monstre ogre monstre sax mo leen gën yeen même psychologue mo leen gën amu leen xol déglu leen Barthélémy Dias di mu wax nee man Barthélémy mi ku kuma bëgg bëggee ma ci deggu kuma bañ bañ ma ci fenn ginaaru kenn nenu ma déglu leen baax li mu wax man duma xeex ak constitution bu constitution xam naa ni Macky Sall am na droit à un troisième mandat man yeb ma constitution te yaxuma kenn mu yeb constitution bi kon nag tey kat man mii kat su Macky Sall troisième mandat du ma génn du ma génn lu kenn waaw kon tey bat lan moo tax man euh, euh, dem troisième mandat réew mi day te du génne du papam Jean Paul du génne ay doom yu góor du ay frères yu góor ak ay sœuram jamais mu ñuy wax troisième mandat

c'est la catastrophe des catastrophes Donc on jaarale toujours à perdre la dictature ne que le peuple est content Nous ngi content c'est que le peuple est mécontent de toi population bi pour la main. plier ses bagages gàcce gu gu gàtt Plier ses bagages. Il y ces bagages devant la nation sénégalaise et pourtant nous, ne xamoon ni droit à un troisième mandat tu as violé la constitution donc il y a impliqué ça implication du que celle du Ken, le mënutul sur deux mandats nga ne kii sax muy julli it la def nga juróom-ñaari kàbbar defaat nga juróomi kàbbar yow doo jaar ci loo xam ni kenn waxu kon nag yaa ci des bu la neexee aussi nag loi bi permettre na la ko comme ñoom nag ñoo dem nag bay def na ñoom it ay 25 cinq ans de pouvoir ay trente cinq ans bu la neexee nga def troisième mandat waaye nag la ciy am ëllëg képp ku ci bokk nga def bañ càkk ba ñu rey la da nga amul ñaanu ndey te da ngaa xaru parce que Barthélémy Dias ne na du xeex constitution bi Macky Sall a droit en un troisième mandat Sonko feelu ko ne dëgg la kon nak xoolee seen bopp waa tey bu ngeen xoolee location dafa cher te ceeb ak dund ak sugar ak café lepp yok borom location yi foog ñu yokk location coupé coupé nañu courant coupé nañu ndox parce que mënut ñu ko fay ku añ doo reer ku lo denduki ñu ngeen ñu ñuy location suñu doom yaangi ngi brave océan bi di dee suñu doom yaangi ni jang ba am personne diplôme bu nek ñu jaay suñu kër jaay suñu or am ñom yaakaar ñi mën pose nañu ñi bi jaaw nañu amuñ fu ñu journalier amuñ fu ñu contrat amuñ sax fu ñu stage ñun loolu xol leen ko

ku ci nekk boo dox sa rôle jël xaaj bi ko sotti ci trésor public kon tey Sénégal dundoolee nii mais tey maire yi xool dépp socialiste ñaata millions d'hectares la ñu jaay ñaata milliards la ba fi nekk nii te kenn di leen jàpp kenn di leen vérifier kenn wax dara daaw ni ak njaay rek ak Pape Góor rek armée yi ci ginnaaw Pikine ñoom ñëpp ñoo ko jaay combien de milliards est-ce que Jamra Abdoulaye est-ce que woo nañ leen ñun nag dañ lay ba pare xas la jaay la ak ñi nga àndaloon wan ginnaaw te keroog ba Pape Sagna Mbaye di taxaw conseil Mom, qui wax te ki pousser sa Niang ba wax lolu mu ngi fi tok di dund Samba Niang taxaw posé Pape question le euh, préfet ngi tok mu ne je suis na ma japp te billahi wallahi talaay laajal ibrahim Diop syndicaliste ibrahim Diop parti socialiste seede la ngi del ñepp ngi mais ñepp ma lâché won ma je suis que sama sort la won sama destin la j'ai assumé. avec dignité avec vertu avec valeur ñu sandi ma dans les ténèbres de la prison falaa que Abdou Aziz Diop que fekk Demba Sones falaa que Thierno Ousmane Sy ministre falaa fekk que Nicolaï yaa ngi dégg falaa fekk tous les grands ténors yu kii jàpp falaa fekk Karim Wade fa nous ñu xamante yooyu yëpp ñu jàpp ñu anamu tey ñoo ñëpp baal nañ leen ne defatuñu dara kon ñun justice bi tay ji c'est pour nous les pauvres Boy wax dëgg laa bi dëgg yéen may préparer ak ay wax soxlawuma mineur dewuma jaayuma drop defuma dara mais bu ngeen ma tëjee Milan sama soor la du yéen mu leen maa tëj yàlla moo may mais nak je vous dis que ni ah nekkuma ku ñàkk fayde wala ku feer ko xamni ki kii da ngeen ñëw rek di ma di ma taxañ taxañ mel ni bi ngeen yóbbu xam ne mëntu la yëngu déedéet ça je vous da man koy assurer yéen la justice war ngeen nek president war ngeen xol ñu leen ñu di utiliser comme ay marionnette war ngeen a bañ te yërëm Sénégal te xam ay doomu adam duñu ay mbala kasso baa ngi ni fess dal.

doonte kurpeñ mosu fa am réewal rek instance mosu fa am diggante gi socialiste yi xool rek de Senghor à Abdou de Ousmane Tanor Dieng xool ci moom xool ci Khalifa Ababacar Sall rek xool ci Malick Gakou rek ñu parti socialiste mais ñëpp kenn ci wax lu ñaaw kenn du ci saaga kenn du ci xuloo kenn du ci dépasse nit waaye ñu ñëw après surtout parti socialiste nekk ay mercenaires pour utal ay poste ñoom ñoom Barthélémy Dias saaga la justice saaga magistrat yi ñun tëj kaso yu dégg ba dégg ñoom Guy Marius Sagna fenn rek tappale rek ñu doon rek ko ñëw est-ce que ñi métti nañu ëllëg ñu def ay candidat ba dañ jàpp non nous voulons la justice et purement la justice une justice pure et limpide comme l'eau de roche allahumma salli ala sayyidina